أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما صلب ووهب لنا شهر العظيم ay chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan salawaatuhu wa salaamuhu ala man adhatha bi jamalihi quluban wa afhama bi jalali afwaha wa haada min almafaqiri adnaaha wa aclaaha wa sumiya inda allahi bi muhammadin wa yaasin wa taha wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim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 ñu ngi ànd ci weer wu tedd wu màgg wi waaye rawatina fukk yu tedd yu màgg yi nga xam ne sunu boroom mu ngi ko tuddee yërmande ni ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa jàngalee ne awaluhu rahma fukki fan yu njëkk yi yërmande la ñu ngi ci biir yal na yàlla bokk nu yërëm ñu julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen ñaan sunu boroom mi nga xam ni Euh, ku am jàmm moo la ko may yal na yàlla bokk nu defal jàmm ñaan sunu borom mi nga xam ni lu barkeel moo ca tabbal barkeel ba yal na yàlla bokk nu barkeel nuyu kilifa diine yi ziyaar leen ndokkeel leen nuyu jur yi ñaanal bu baax sunu label yal na yàlla yëkkati ñaanal sunu directeur Hadj Makhtar Silla yal na yàlla taxawul nu ko waaye taxaw waale mboolem personnel am bi yëpp teg ko ci loxol soxna ayda mu yóbbaale ñëpp géew Euh, jagleel tabaar la kàllaa nuyoo ko ziyaar mu jëm ci sunu soppe yi nga xam ni ñooy ànd ak ñun ci jilsatu nabi di jataayu sayduna muhammad yi bàyyiwuma fenn bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ñaanal sama borom yal na yàlla bokk nangul weer wi maa ngi koy sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla ci barke saydul wujudi ci yiw ko nga xam ni euh, ni ko yonent bi waxee ni premier jour yu njëkk yi ñuy woor nga xam ni mooy fukk yii ñu ne yonent bi nee ne yërmande yàlla day tàbbi suñu kaw moo tax awaluhu rahma maa ngi ñaan yërmande yàlla wow muy séddale ci fukki fan yi yàlla buñ ca ëppale yàlla ko yàlla sédd bu nu ko seddee ba yërmande bi tàbbi sunu kaw yàlla bu nu defati lu muy jéppee parce que ku toll ni yàlla bu xasee ba tàbbali yërmande ci sa kaw rek dana la orienté ba dootoo am sañ-sañu def lum lay jéppee maa ngi ñaan yàlla na tàbbal ma gi suñu kaw ziyaara bu baax sama jigéen ajaratu yaa Xadi Juuf tabar fakal la ndokkel ko waaye noonu lañ koy ziyaara ajaa Xadi Sàll sama jigéen ndokkel ko ñaanal leen sama boroom yàlla dolli taxawaay ci ñoom waaye dolli ko mbooleem jaami yàlla yi euh, mbokk mag yéen bi ñuy tàqaliwoo démb maa ngi waxtaane li ci jiitu tabarfakalla ci accompagnement weer wi parce que weer wi dafa am yu mu laaj ñu accompagne ko moom pour li ñu ci wut te mooy ñu bokk ci ñi nga xam ni sunu boroom da leen di nangul seen koor koor yomb na waaye wax naa ko de nee naa yombulit yomb na ci boo nangoo ni yàllaa ko santaane ba tax nga xëy bañ a lekk bañ a naan bañ a seeg sa soxna ndax yàllaa ko santaane yomb na ci boobu waaye koor ni nga xam ni yombul mooy koor gi yàlla soxla nga xam ni mooy sawmul xusuus mooy koor gi nga xam ni moom la yàlla doon wër ci ñun te mooy woorloo sunuy cir boobooy bi jafe nga xam ne làmmiñ day woor bët day woor nopp day woor tànk day woor wax naa la ko ba ci xel mën na la day woor wax naa ko démb ba ci xel day woor mën na koor googoo jafe waaye bu dee woor gi nga xamante ni mooy sawmul umum mën na am ñëpp ko mën mooy ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk séeg sa soxna loolu ñëpp mën nañ ko waaye est-ce que loolu la yàlla soxla woon ci weer wi waxoon naa la ko keroog ma ne la déedéet du loolu rek koor sunu borom daf ne dañ ciy jaare la'allakum tattaquun ma waxoon la ne nag dafa am yu mu làmbool yoo xam ni moo lay may nga mën a bokk ci la'allakum tattaquun yooyu ngay fexe mu accompagner la keroog ma jàngale woon xalaa u batnin ndax nitu yàlla bee ko wax dawaa'u xalbaka xamsun inda qaswatiha fa dum alayha tafus bil xayri wa zafari bu sa xol yàqoo nga bëgg sa xol defaru ba nga bokk ci ñi ragal yàlla ne na kaay ma conseil la juróomi mbir ngay fexee wut ma jiitu loon ci xalaa u batnin fexe ba sàmmoon teg sa bopp ba ci weer wii nga ne duma lekk lu xaraam <laughs> moo tax waxoon naa la ko ma ne la bàyyil xel li ngay la bi ngay wax allahuma laka sumtu wa bika amantu wala risqika aftartu loo tiim li tiim wërsëg wi nga koy jëndee maa yaa ngi koy bàyyi xel ba ban wërsëg la wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili kon fexe ba doo lekk lu xaraam moom ngay fexe mu accompagner weer wi nee ma benn moom lañ jàngale woon tey maa ngi ci ñaareel bi mbokk yi ñaareel bi nga xam ne faw mu accompagner weer wi mooy lan wa qur'anun tadabburuhu mooy mbokk yi alquranul karim ñu boole koog di ko settantal wa qur'anun tadabburuhu mbokk yi téere yàlla bii mbokk yi waxe sunu borom bii fawu ku bëgg sa koor nangu moo lay accompagner d'accordal moo tax weeru alquran moo tax weer wi weeru alquran la nitu yàlla ba waxoon na la watlul qur'ana wa sabbih fihi mujtahidan fa innahu sahru tasbihin wa qur'anin mbokk yi ñaareel baa ngi noonu yow mi bëgg ànd ak koor gi ba koor gi su jeexee ma bokk ci la laallakum tattaquun nitu yàlla bi nee na la maa ngi lay ñaan ñaareel bi lay accompagner ci weer wi nee ma mooy alquranul karim mbokk yi nañ jàngal quran nañ ko jàngal sunu njaboot nañ fexee jaayante mën ko parce que dafa bokk ci jaamu yàlla yoo xam ne buñ ko soxlaa faaw alquran ñëw kon wa qur'anun tadabburuhu ixwani in hada alquran alladi bayna aydikum natluunahu wa tasmacuunahu wa taxfaduunahu wa taktubuunahu wa huwa kalaamu rabbikum rabbil aalamiin mbokk yi alxuraan mii ngeen seen ci pénc mi nu koy jàng xale yi di ko tari ñu koy bind ci àlluwa ak téere yi mu ne na ngeen yëg ni loolu mooy kàddu yàlla mooy li yàlla wax ju ñun mbokk yi foofu la santaane yàlla yi ne mbokk yi foofu la tere yàlla yi ne mbokk yi foofu la yàlla yi ne mbokk foofu la dikk yu yàlla yi ne mbokk yi foofu la yàlla jàngale mboolem fi àdduna masa jaar ba keroog ñuy dekki àllaaxira téere bu mel ni moom amul téere bu tollook moom amul téere boo ko tollaleel téere ba néew kàttan moo tax yow mi bëgg a noppalu bul jël benn téere di ko tollaleek alxuraan parce que sa téere ngay wàcce kon garaatam bu mu doon sa téere sëriñ bu mu doon sa téere xarit bu mu doon sa téere baay bu mu doon sa téere kenn koo am batax nga ne danga koy jël téereem ba koo tollale ak alxuraan yaa ngi wàcce sa garaatu téere bi nga bëgg a tollale ak parce que dara tolloowul ak moom te wolof nee na li gën a métti mooy tooñ ku la <laughs> boo tooñee ku la mën fu mu la fekk duma la te alxuraan mooy téere bi mën téere yépp afdalu ma yutla wa ma yuqaalu wa xayru ma yunfaqu fihi almaalu qiraatul qur'ani inda naasi mbokk téere baa téere bi gën ci téere yi alquran la téere bi gën ci li ñuy jàng alquran la moo tax xoolal lu waaye jàng ngënee lañ ca waaye kaay ma wax la kii jàng alquran tiim na la d'accordal yow mi yendoo jàng taysir maa ngi lay wax de kii yendoo jàng alquran du sa moroom d'accordal yow mi yéen doo jàng jawaratumil furqaane eh d'accord al kii jàngal xuraan du sa moroom nañu fexe sunu doom yi jàngal xuraan afdalu maa yut laa leen tu yàlla bi wax li gën ci li ñuy jàng wa maa yuqaalu di ko wax ci pinc ñu koy d'accord danga may d'accordal ne qiraatul qur'an la wa qur'anun tadabburuhu mbokk yi ñaareel bi nga xam ne faw mu ànd ñun ci weer wi accompagne ñu pour ñu bokk ci la allakum tattaquun da ngay d'accord ni mooy alquranul karim wa huwa xabluhu almatinu mooy buum gi dëgër gi nga xam ne moom la yàlla yoor ne téeleen ci xam da ngay ñaan yàlla nee na téeleen ci buum gi mag jukki leen ma jukki leen ngeen ñëw buum gu dëgër gi nga xam ku ci téye yàlla jukki la nga ñëw ci moom xam nga lan la mooy alquran jàppee ko mooy li yàlla yor ne yéen ñi bëgg a ñëw ci man yor naa benn guum buum gii nag ku ci tee danaa la jukki nga ñëw ci man mbokk yi buum gi alxuraan moo tax ku ci jàppul jëmoo ci yàlla d'accordal ku ngeen seen mu kontul alxuraan ne ko demoo ci yàlla ku ngeen seen muy xeex ne ko demoo ci yàlla ko seen mu doyaral alxuraan ne ko demoon ci yàlla ndax foofooy wa hada siratun mustaqim mu ne alxuraan mooy yoon wu jub bi nga xam ni moom la yàlla rëdd pour nit ku ci bëgg ku nit ku bëgg a yegg si ci moom ca ngay jaar te mooy bii bi xaqiqatan mooy dëgg dëggi kàddu yàlla yi ga dégg moo tax mag ñi dañ daa wax naan soo bëggee yàlla wax ak yow jàngal alquran yow nag soo bëggee wax yàlla demal nga julli ñaar yi dong la mbokk yi da wax ak yàlla mbaa yàlla wax ak yow boo bëggee wax ak yàlla demal kàbbar nga julli di nga wax moom waaye boo bëggee yàlla wax ak yow demal jàngal alquranul karim yàllaa ngi wax ak yow moo tax fa nazala bihi ala qalbi muhammadin téere bi yàllaa ko wàcce ci sayduna muhammad li yakuna min almundarin wasafahu llahu bi awsaafi alazimati li tuazimuhu wa taxtarimuhu bi qawlihi taala chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinatin min alhuda walfurqan mbokk yi ñaareel baa ngi noonu mooy alquranul karim mooy ñaareel bi nga xam moo ñuy accompagner mbokk yi waxtu wi dat na ma waaye tegaat naa baaraam foofu nga xam ni mooy ci ñaareel bi man ak yéen ma joxaat leen rendez-vous ñu del siwaat suba ànd ci wa qur'anun tadabburuhu ñu ngi ñaan sunu borom yal na yàlla bokk nangul nu sunu weer wu tedd wi juróom yi nga xam ni nitu yàlla ba nga koy wax mu accompagner ñu yal na nu ci weer wi yàlla bu nu ko dara yàqal bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam mbokkiti waxtu ma dab mais teg naa baaraam jox leen rendez-vous suba iza aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa ari hayatal mumin mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ومن أضل ممن يدعو من